Walfadjri ginnaaw ba ñu déposé ñaari plainte benn contre Babacar Diagne bi ci des contre X ñoom nag daal di nañuy préparé ab manifestation ci vendredi bi di tombeek 17 février 2023 groupe Walfadjri gi yëpp nag di ci invité sénégalais yi nga xam ne dañoo bañ tooñ dañoo bañ nooteel dañoo bëgg di sàmm li nga xam ne moo di démocratie ay ci sama mbokk patriote yi bu len kenn jitu ci wal fajri vendredi le eh, 17 février 15 heures lay commencé de ngeen bi ñu leen waxee ngeen abonné ci wal fajri nak dégg na Cheikh nias di sante sénégalais yi parce que gën nañu abonné mais dess na dé heure bi ci jour ba manon na fekk wal fajri am 1 million d'abonnés sama gay bu len négliger li lii ay détails yu ndaw la yu ngeen négliger mais dafa am signification